aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu bokk yi teew ci jataay bi yëpp di sant yàlla sunu boroom ci may gi munu may nu am kattanu mën a teew ci barab bi muy loo xam ne lu ñu yàgg yéene la ni muy demee moo ko waral te xamees na ko waaye nag dama wax sëriñ Abdou ne ko dañuy wax ne cin lu mu xat-xat bokk xorom ñu mën caa déggee lu bari nag ndax bis bi bisu borom Daaru Muxti la ak sëriñ Touba. sëriñ Cheikh di am cër ci sëriñ Touba am ko ci borom Darou Mouhty liggéey ko itam nag liggéey boo xam ne ku xam daarul Mouhty ku nekk xam nga ne liggéey na ku fi dugg ku nekk it xam nga ne liggéey na ndax boo xoolee jumaa yi daarul Mouhty yi soo ko defee ñeenti xaaj ñett yëpp da ko cee dolli. bu fekkoon ne lu ñuy werante la boo dikkee moo won la carnet bi nga xam ne ci la dërëm yëpp jaar ba mu àgg te benn du fanaan àlla li nga xam ne dépassé na ko ci ci lu ñu togg ci waañ wi tabax na lu mu néew néew ñaar ñaar fukki jàkka yu ndaw ak juróom te lu ci ne mën naa la ko jox nga teg sa bët ak sa baaraam mu liggéey liggéey boo xam ne liggéeyal na ko way juróom borom daaru mooti liggéeyal ko sëriñ tuuba waaye liggéeyal ko lislaam jépp loolu bu dee ci borom daaru mooti kenn ku nekk ci ñi mu bokkal borom daaru mooti xam nañu ne sëriñ Cheikh di defoo woon na leen bokkoo woon na leen yilif na leen nangoo woon na leen a yilif itam ñu nangoo ñu nangu ku leen yilif mu yombal ab ab ab liggéey mu wone ko ci yoonu sëriñ Touba it ñu bari ñoo xam ne ñoo nu gën a jege Serigne Touba wax ñu nañu sëriñ Cheikh Khadim mooy sunu royukaay kon liggéeyal na sëriñ Touba ndax roy rek moo fi nekk mu liggéeyal lislaam itam ndax bari na ñoo xam ne ci sëriñ Cheikh Khadim lañu ñu xamee Daarul Muxti ci lañu gën a xamee itam lan mooy yoonu murit ak naka la tëddee kon ñoo ñëpp liggéeyal na leen yàlla mayoon ñu nekk ci wetam di liggéey ak moom di. bokk ci ñi nga xam ne dañuy dox ay yónnentam ba tax na nu xam ci moom loo xam ne duñ mën a wax lépp waaye daal mu nekk koo xam ne lépp lu ñuy taamu ci kilifa ba tax ñuy topp ci moom mi ngi ci moom lépp lu ñu mën a màndargaale itam man makaarimul axlaaq mi ngi ci moom jekk di ko wax di ko waxaat it jàpp naa ne fàttalee lay doon waaye kenn umpale ko ndax wax nañ ko waxati ko kon boo fekkee ne sëriñ ab Abdou dafa am xalaat boo xam ne ànd koo ki bokkam yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Cheikh di ñu dëppale ko ak liggéeyu Darou Mouhty borom Darou Mouhty yaakaar naa ne loolu euh, danañ ci mën a taxaw xoolaat ci lu baree bari ndax sëriñ Cheikh Khady dafa nekkoon koo xam ne léppam daf ko nëbbu nit ñi delloo ko ci borom Darou Mouhty lamboo ko jumaa ji ma lay wax ni mu toll ba mu àggee dafa bëggul ko ko li ñu tuddee woote ko di ko inauguré waaye ajjumaam ji ñu ko doon ñaanal bu ñu ko doon inauguré mënut a ëpp loola. loola kon sunu boroom fayee ko ko jëf yépp nag noonu lay mel man lenn lu ci nekk sunu borom bu la koy fay nam koy fayee moom moo xam waxtu ak bis bak nam koy defee mu fayee ko ko noonu. beneen fay ba ca des moo di ci sëriñ du mi laa koy jaarale moo di sëriñ Abdou mi nga xam ne moom la bàyyee mu jiitu njaboot gi moom itam mu nekk koo xam ne ku mën a dajale ak njaboot la ku mën a dundal ak bokk la te yaakaar naa ñi ci jataay bi yëpp xam nañ leen moo leen fi tax a teew te kenn du am jaaxale ci ne ki wuutu sëriñ bi loo xanaa ko ay yoon yoon ndax tàmm na jaxasoog ay nit ñi tàmm na jëflanteeg ay nit ñi te loolu daana indi léeg-léeg jafe-jafe ci ku wuutu kilifa waaye fekk na tàmm na jaxasoog nit ñi tàmm na sonn ci nit ñi ba kenn ku ci nekk sawar na ànd ak moom ab jataay sa ànd ak moom ci ay jëf loolu sëriñ bi euh, mu nekk loo xam ne ndimbalul sunu borom la te li nga xam ne liggéeyal na ko borom Daaru Muxti liggéeyal ko yoonu mu liggéeyal ko lislaam it mu moom mii di sëriñ Abdou wëlbatiku di ko ko dem jéem a delloo njukkal damay dem bu may dem màggalu tuubaa damay jaar bayti di di di di siyaare di di tàggoo bu ma duggee barab bu Baye Cheikh dama ko ne xam naa ne liggéey nga waaye liggéeyal nañ la waaw liggéey nga waaye liggéeyal nañ la loolu nag sa jëf doo ko jiite du ma romb ci kër gi te xooluma batiment bii ndax ba mu ko mënee def te defu ko yàlla may ko loo xam ne dina taxaw ginnaawam ba def ko ndax loolu itam yàlla na jaadu na waaye ab denc la woon kon sëriñ bi dencal nañ la ko Cheikh Mouhamadul Amine Baara mi njëkk nekk xalifab Serigne Touba dafay ñëw ne ko bi ku jaar ci sa penc mi xam ne daa am lu ñu la dencaloon waa kon xëy na da laa sédd yow itam mu dencal la nga mën a taxaw ci ginnaawam loo xam ne dañ ne lii mënu fi woon a yàlla sàmm bu baax sàmm njaboot yépp di seedeel ñëpp ne mbooleem li nga xam ne moom la ñu deseel Serigne Cheikh Khady ñun ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak moom di wut ngërëmam di wut ngërëmul borom Daaru Muxti moom gën a feddali li nga xam ne mooy mooy mooy bokkoo gi ak dëgëral gi ci ni nga xam ne ne la ko sëriñ Abdou di doxee te te lépp lu ñu war a mën a def lu nekk di ci sedd li ma wax léegi ci kër sëriñ Abdou Khoudous mooy feddali kóllëre gi ci ki fi nekkul loolu mooy li nga xam ne moonu mën a moom lañ ko deseel kon dañuy ñaan yàlla sunu boroom loolu nu ko deseel bu mu manqué mukk yàlla na mat amiin kenn du ne du ne bu fi sëriñ bi nekkoon sëriñ du ak Bachirou du ñu doxalee nii loolu jombale nañ ko sunu bopp jombale nañ ko sunu biir sunu biir yi bokk ndax it nag kuñ mag moo fi nekk waaye gone néewu fii kon yaakaar naa ne li nga xam ne moom la ñu dund ak moom mu nekk koo xam ne kii keroog bi nga xamee ne wuutu na sëriñ Abdul Xuddus euh, li nga xam ne wane na ko ci biir bokk gi mooy nanu àndandoo liggéeyal borom Daaru Muxti kenn ku ci nekk ne ci dugalal loxoom ñu ànd liggéeyal borom Daaru Muxti te liggéeyal borom Daaru Muxti kat mooy liggéeyal sëriñ Touba. menn mandarga rek doy na la ci cofeelu euh, Baye Cheikh ci ci ci borom Daaru Muut ak sëriñ Touba amul kenn ku muy ñaanal ba àggal te néewul barke borom Touba waaw barke Serigne Touba barke borom Touba mooy daaneelu ak ñaanam te te loolu ñi nga xam ne xam nañu dara ci geneen wet xam nañ ne loolu yóbbaale na lépp foofu doy naa yam kon loolu mooy mooy royukaay bi nga xam ne moom lañu ñu war a roy ci moom di won ñëpp ne leen ñun dey gërëm nañu ko ci kaw nit koo xam ne dalaa lépp nga war koo liggéeyal mu bari kers ba nga xam ne am na loo xam ne sax du la ko defloo mu nekk koo xam ne dafa laabiir ba am na loo xam ne du la ko defloo te yow yow la yow yow la ko yow la ko war a defloo nit ku yaatu koo xam ne kii lépp loo ko loo ko xalaatal rek loo wax lu nekk rek ci luy defar lu ne ànd na ci ak yow lu mbir rëy rëy rëy ak ak lu kilifa rëy rëy rëy buñ ñëwee rek danaan leen dem leen ci moom man defe naa ne man maa koy ameel ameel njabootam njukkal waaye moom deselu ma dara njabootam it deseluñu ma dara moo tax loolu faw ma seede ko ci mbooloo mi seete ko seede ko mbooleem kuy dégg sama kaddu ak fu mu mën a nekk ndax loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg ci man te loolu dama ko dund ak moom kon jaadu na bu fekkee ne bis bi dañ ko ciy fàttaliku ma seede loolu ci kanam ñëpp ñu dégg ko xam ne ngërëmam moom lañ doon wut te jàpp nañ ne am na luñ ci am buñ amul lépp itam ndax yombaloon na ko nag da ko yombaloon looloo tax kon sëriñ bi lii nga xam ne yaa ngi koy sàmm ginnaawam di ko ànd njaboot gi di ko sàmm ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom mu may la kàttan gi ba nga gën ko mën a jàllale ni nga xam ne nii lañ ko nii lañ ko bëggee te lépp loo xam ne liggéeyoon na ko itam bàyyi ko fi loolee mu fi bàyyi muy rogalaat di wéy ba ñëpp di ci jariñu te yaakaar naa ne ku dégg kàddu sëriñ Abbas ci fan yële ca ginnaaw biñ koy fàttaliku wax ja wax ja wax ja yóbbu na ko sëriñ Cheikh lépp lu mu waroon a def lu ne def na ko loolu boo ko sëriñ bi waxee moom bi ko wóotu kon xam nañ ni euh, Baye Cheikh liggéeyam moom matale na ñoo ngi ñaan yàlla sunu boroom lépp loo xam ne liggéeyoon na ko sëriñ Touba liggéeyal ko boroom Daaru Mooti lam ca doon wut moom am na ko ba noppi waaye sunu borom tasaare ko ci euh, ci ci ci ci biir taalibe yi tasaare ko ci biir jullit yi tasaare ko ci biir réew mi te ñaan yàlla sunu borom moo def jàmm ci réew mi def jàmm ci réew yi jullit yëpp te lépp loo xam ne aw ay la sunu borom teggil na ko te mu musal ci mbooleem koo xam ne ki yéene nga lu baax te képp koo xam ne ki bëgg nga lu baax it sunu borom yombalal la ko waaye nag mu nekk loo xam ne dañ koo war di wut te di ko dund bis bu nekk suba ak ngoon ndax sunu borom ku jàmm la nitu lu ku bëgg jàmm te léppam jàmm la dina tax nga mën koo am waaye di ko wax rek te wutoo ko yit defe naa ne loolu du ko tax am dañ ko war de wax te di ko dañ ko pas-pas ci xol yi wax ko ci lam yi di ko jëfe ci cër yi ndax yàlla sunu borom defal nu ko kon sama gàttal mooy maa ngi ñëwoon ngir ànd ak sëriñ Abdou ak bokk yi ci jataay bi ngir fàttaliku sëriñ bi ngir fàttaliku lu baax li nga xam ne moom la dund ci kaw suuf ngir fàttaliku rafetal gi nga xam ne moom la doon rafetal ak mbokk ngir fàttaliku rafetal gi nga xam ne moom la doon rafetal diine di fàttaliku itam Euh, anam yi nga xam ne moom la wuutoo borom daarul mooti te lépp lu mu yëkkati lu ne ñu xam ne lii kat dafa mel ne mënutoon a ñàkk defe naa ne loolu itam ku koy fàttaliku bàyyi sax faaw nga fàttaliku waale ci mboolem liggéey yi nga xam ne nag moom la def ci biir dëkk bi loolu kon bu ci sa bëttee tege sa te boo boo boo boo bokkee waa waa kër borom daarul mooti danga xam ne lii du woon lu mën a ñàkk kon yaakaar naa bu ñu koy fàttaliku yooyu yëpp dañoo war a waale jëfam yooyu nga xam ne bu ba addunay tukk du fi jóge mukk kon sëriñ bi ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom mu nangul nu ñaan yi nangul nu jëf yi te képp ku fi ñëw ku nekk euh, jàngoro joo fi indi sunu borom faj ko aajo joo fi indi sunu borom faj ko ndax moom kat amoon na loo xam ne ci sunu borom yàlla may na ko ko mën nañu ko mën nañ caa am ba nëgëni bu fekkee ne pas-pas baa ngi fi ak gëm-gëm bi mën nañ ko ca am kon ñi ngi ñaan yàlla sunu borom lépp luñ fi ñaan rek mu jot ci te jotaleenu ci ñi fi desandi di sant di gërëm sëriñ Abdou ak bokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal sëriñ bi soxna maam Fatick ñi nga xam ne ñoo cee nekk ci ginnaawam yëpp waaye bokk yi fi fekk ñoom ñëpp te ay walërëy sëriñ sëriñ Abdou di walërëy euh, kër gi ak sunu bu ñu nee si walërëy sëriñ mooy sunuy sunuy kóllëre waaw ndax nit boo koy am am ñëppam nit boo koy am da ngay am ñëppam te loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo ñi ngi leen sant yéen ñëpp ñuy fekk donte waaw imaam Dame Ndiaye waaw moom ñu <laughs> moo tax dama jotul woon a gis ñëpp waaye jàpp naa ne kenn ku nekk mel na ne ni ma sëñ di wax ci imaam Dame Ndiaye ak ñeneen ñi ci des ñëpp e, jàpp leen ne rek jox naa leen sama loxo ci nuyoo leen ne leen marhaban ahlan wa leen ci barab bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te muy loo xam ne lii itam nag lu ñuy fi def lu nekk dundal lislaam rek ko tax a jóg nag du leneen dundal l'islam jooju mooy li nga xam ne moo fi indi woon Serigne Touba. dundal lislaam mooy li nga xam ne moo fi indi euh, Alaaji Malik ak mboole mag ñi xam ne ñoo fi nekkoon bi may dugg si maa ngi maa ngi dégg ki doon wax muy wax euh, waxi Sëriñ Tuuba fa kullu wirdin yuridal murida xam nga euh, ab jullit moom la ñuy wax murid wala tijaan wala xaadir waaye ab katolik kenn kenn du ko wax murid wala tijaan wala xaadir kon lislaam mooy ndeyi mbir mi jullit a tax ñuy wax murid wala tijaan wala xaadir kon loolu li nga xam ne mooy ndeyu mbir mi looloo mat a téye te toll na foo xam ne fii sonal nañu ko kon ñi ko moom dañoo war a xam ne mooy ndey lépp ñu téye ko noonu boo demee fële yaa nga fa fekk protestant ya yaa nga fa fekk leneen ak leneen am nañ seen i tarixa ci seen biir kon lii nu am ci suñu biir nag la baax mooy ñu téye ko te xam ne lislaam mooy ndey ji buñ ko téyee rek téyewaale nañu murit gi ni ko sëñ Cheikh Sidil Muxtaar radiyallahu taala anhu daan waxee kon am nañu buñ téyee l'islam ji rek téye nañu lépp murit gaa ci biir xaadir gaa ngi ndax loolu moom euh, ak taxas par par par par loo de xatal diine ëpp na ëpp naa def kon lii nga xam ne mooy li ma fekk kooku di ko wax lu am solo la ci ci mbir mi na nañu xam ne ñun ñëpp ñi fi nekk euh, mooy moo moom